أبى الله أن أصوم إلى غير سيدنا إمامهما ميزاك أحمد تيجان سنتي بروم سبحانه وتعالى ci mbolem xewalen yépp di julli di sëlmal ci ki nga xam ne mooy gën di mbindeef mooy suñu sang bi mooy ki ñu yàlla tànnal bi yërmande ñeel adduna bi yépp Mawlana Muhammad ak waa kër yu laaj yëpp gannaaw loolu mbokki jullit ñi borom bi subhanahu wa taala dafay wax ci alquran ci suratul ahzab même yàlla man maa exposé jël damaa jël li nga xam ne mooy confidence wala li nga xam ne moom mooy responsabilité wala ndénkaane nga xam ne da ngaa war a ñëw ci bi taxawee man maa ko jël exposé ko ne e montagne yi kaay leen ma am lu ma leen dégg asamaan suuf kaay ma am lu ma leen dégg yàlla wax ne ba ma ko defee asamaan ak ak li nga xam ne ñoom ñooy montagne yi dañoo ëpp doole doomu aadama dañoo taxaw ragal ne borom bi subhanahu wa taala responsabilité boobu noonu ñun attanuñu ko bañ yàlla nangul leen seen bañ boobu parce xam na li ci nekk kan moo dëgg fit nag kan moo ñeme kan moo engagé mu ne doomu aadama doomu aadama boobu noonu moom moo ñeme ne yàlla kaay man pare naa pour jël responsabilité boobu noonu responsabilité doxal suuf responsabilité nekk sa xalifa ci kaw suuf responsabilité war fee def lu baax doomu adama moom mu jël responsabilité bi nga xam ne montagne yi dañ koo daw asamaan da koo daw suuf da koo daw ñun ak niñ xeeboo ñu jël responsabilité boobu waaye yàlla tegal ñu ci ne doomu aadama ku mën a tooñ zalluum ci rabu baala la dafa jéggi jéggi dayo ci mën a tooñ jéggi dayo ci réer moom moo tax ñu nangu accepté responsabilité boobu ba pare yàlla ne lan moo tax ngir moom buggal képp kuy naafeq te naafeq moom ñett bu nekkee ci moom rek ku nekk ku mu nekk ci moom naafeq bu waxtaanee buñ ko wóoloo mu wóoruñ bu diggee ko ci tam nekk ci moom rek benn sax bu nekkee ci moom am nga ci melokaanu naafeq yàlla ne pour ma mbugal naafeq yi ñu góor yeeg ñu jigéen ñi ak ñiy bokkaale ñu góor ñu jigéen ñi ba pare ma jéggal tuub ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm ñi gëm nag ñoom ñooy responsabilité bi la yàlla jox il faut nga jëm koo taxawee mënoo ko taxawee cent pour cent mais da ci def sa kéem kàttan ma jéggal ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi gëm te yàlla nee na moom mooy ki nga xam ne mooy ki mën a jéggale mooy ki yërëmaate avant aaya yii nii yàlla dafa am lu mu ko jiitalee yéen ñi nga xam ne wax yépp alaxira dañu taxaw ne ay yàlla ñun de dañoo toppoon suñu sang yi toppoon suñu buur yi ñoom ñooñu réeral yàlla yoonam nekku ci parce que amul kenn kuy yenu sa bàkkaaru moroom ku nekk yow yaay yenu sa bàkkaaru bopp amul ne damaa toppoon sëriñ bi wala dama toppoon kilifa gi wala damaa toppoon borom xam-xam bi wala damaa toppoon jiitu réew mi wala déedéet kenn ku nekk xam nga sa responsabilité parce que yow kese yow la yàlla ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw di wax loolu sotti leen leen bëgg bëggal mi ful leen ko ci ñoom bu leen loolu bëggal benn yoon mais ful leen mbugal seen kaw parce li ñuy wax nii ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko tey ba pare yàlla waxaat ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm bu leen mel ne ña nga xam ne ñoom ñoo loroon Moussa bu leen mel ne ñooñu noonu ndax doomu aadama bi toujours da ngaa war xool yaa ngi loraate wala loraate wu parce que waroo lool kenn koo xam ne doomu aadama bu tegaat ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm na ngeen wax na ngeen ragal yàlla ba pare tey wax wax ju jub wax ju prêt wax ju tegu ci yoon bu ngeen defee loolu yàlla dana leen yéwénal seen i jëf yàlla dana leen jéggal seen i bàkkaar ba pare ne képp ku topp yàlla ak yeneen bi tollu nga gañee nga ndamu nga kon ñun li ñu war mooy wax wax ju jub gëm yàlla ragal yàlla ba pare topp yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam rek mun a ci ñi nga xam ne ñoo am ñoom ñooy song ñoom ñooy am ndam kon responsabilité li ñuy wax responsabilité ak li ñuy wax confidence buñ ko yemale ci wax kese mu ne bi ne confidence nag dañuy jàpp ne wax kese la passé na jikko la joo xam ne jikko ju màgg la mbiram lu rëy la dayo bu rëy la am ci borom subhanahu wa taala mais doomu aadama moo dëgër fit ñëw yenn ko nekk koo xam ne ku tooñ la ku réer la lu ëpp ci doomu aadama yi ñun lañ mel dañoo mën a tooñ dañoo réer lu dul koo xam ne jàng na njàng ba pare jub ci li yàlla digle waxuñ jàng ba pare mun ngaa jàng ba pare ëpp ci xam-xam gën fee saay saay loolu bëri na ci suñu société mais da ngay jàng ba pare nekk ku ragal yàlla topp topp teg sa tànk ci li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala digle génn ci lépp loo xam ne daayira réer la jëm ci xam-xam génn ci lépp loo xam ne tooñ la jëm ci justice ak jubal ak nekk ci dëgg imam ahmad dafa génne ci téeréem bi ne yeneen ti bi ak a néewoon lu ñu doon xutba te waxuñu ne ngëm mun ta ànd ak koo xam ne dafay ñàkk a doxal responsabilité ngëm du ko am mu koo xam ne dafay sànni responsabilité fële mënul am ngëm mu ne diine aussi tam mun tax ànd ak koo xam ne du am du jël engagement du jël responsabilité loo ko dénk mu mu sàggane kooku mun ta am diine mun ta am ngëm kon dénkaane yi nga xam ne nii moom la ñu borom bi subhanahu wa taala dénk yëpp danañu ko laaj moo lépp ci lu jëm ci wàllu digle yi nga xam ne dañ ko war a digle ak tere yi nga xam ne dañ ko war a tere ci lu jëm ci àq borom bi subhanahu wa taala ak doomu aadama yi ndax lépp loo xam ne ñu ngi ko yàlla dénk nañu ko ci kaw suuf danañ ko xam julli la moo xam azaka la moo xam leneen lu lu ñu yàlla digal yeneen bi digal ñu ko danañu ko laaj lépp ay dénkaane la yoo xam ne nañ taxaw ci kanamu borom subhanahu wa taala la yow moo xam bàyyi lu xaraam la topp yàlla ak màggal wala ay dénkaane yoo xam ne dañu koo dénk suñu diggante ak nit ñi moo xam alal la wala responsabilité la ci dëkk bi wala lu mu mën a doon liggéey la koo xam ne yow yaa koy liggéey yow yaa ko war a taxawee ba mat boo ko taxawee borom bi subhanahu wa taala dina la ko laaj dëkk yàlla dégg la dëkk bi borom la ko laaj nguur la nga nekk njiit borom bi subhanahu wa taala dina la laaj lépp kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñoom nga jiite woon ci àdduna boobu noonu koo ci yoreen àq dana taxaw la yoo ak yow te loolu moom yow na yàlla nekk ci yàlla moom day taxaw moom mooy kii atte dana taxaw rek la seen diggante yéen ñaar ñu dénk la ministère wala nga nekk ab député wala nga nekk ab directeur wala nga nekk ab jàngalekat wala nga nekk lu mën da nga taxaw layoo ko ci kanam borom bi subhanahu wa taala parce que responsabilité la boo xam ne il faut nga layoo ko ak borom bi subhanahu wa taala yàlla wax ñu ci alquran yi ne inna allaha yamurukum an tuaddul amanati mu ngi leen di digal ngeen matale kóllëre yi confidence jox ko seen borom ba mu mat sëkk borom wa taala waxaan ne ey yéen ñi xam ne yéen a gëm yàlla bu leen nekk ñoo xam ne dañuy wuruj kon képp kuy wuruj gëmatoo yàlla génn nga ci daayiratul iman bu leen wuruj yàlla di wuruj yonente bi sallallahu wa sallam te loolu bu ngeen ko defee mooy da ngeen wuruj confidence ak ndénkaane bi nga xam ne nii moom la leen borom subhanahu wa taala dénk te da ngeen ko e fekk yéen a yéen a ko gën a xam kon képp kuy wuri yaa ko gën a xam moo borom bi subhanahu wa taala moom moo ko wax yàlla daal di tagg ñi nga xam ne ñoom ñoo leen taggee ci sàmm gi nga xam ne ñu koy sàmm seen confidence ak dénkaane bi nga xam ne ñu moom la leen borom bi subhanahu wa taala dénk mu ne ñi nga xam ne li ma leen dénk ak kóllëre gi nga xam ne moom laa leen jox ñu ngi koy sàmm kon li war ci jullit mooy mu taxaw ci li nga xam ne moom lañu ñu borom bi subhanahu wa kenn ku nekk ak sa responsabilité fu mu toll kenn ku nekk ak sa responsabilité sa dayoo responsabilité ñii mën nañ koo réyle ñii mën nañ koo tuutile mais kenn ku nekk ak sa responsabilité benn xadis boo xam ne imam Bayhaqi moo ko génne ibnu Mas'ud solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama ñi nga xam ne dañoo marqué dañoo dee ci yoonu yàlla xam nga ñooñu dañuy ñëw rek dugg àjjana rek mu ne am na ci ñoo xam ne nag duñ dugg àjjana rek dañu taxaw yàlla laaj rek ñu ne ko yonent bi ñooñu ñoo nga xam ne parce que ku ñu rey ci yoonu yàlla sa bàkkaar yëpp yàlla dala koy jéggal ba mu def benn mooy confident dénkaane bi la borom bi subhanahu wa taala dégg boo ñëwee borom bi subhanahu wa taala danaan confidence bi ma la joxoon li ma la dénkoon delloo ko feeñi borom nga taxaw ne yow yàlla ci ak ak àllaaxira lañ nekk nekk suñu àdduna bi amatuma lu ma lu ma fayee mu ne la ah il faut nga fay ba pare ne sànni leen ko ilal hawiya hawiya mooy safara bi gën a suuf ñu sànni la ilal sànni ko mu ne bu demee mu yenu li nga xam ne nii moom lañ ko joxoon mu war ko responsabilité boobu mu yenu ko ci biir safara ba nga mu dem ak moom ba confiance boobu wadd mu ànd ak moom daal di tax bi tàbbi ci biir biir biir safara mu jàng inna allaha yamurukum an tuaddul amanati ila ahliha yàlla mu ngi leen digal ngeen motale li nga xam ne mooy dénkaane jox ko seeni borom ba mu mat sëkk kon nañu xam ne ñun ay doomu aadama lañ duñ ay machine doomu aadama du machine dafa am na la borom bi subhanahu wa bindee jox la confiance parce que yow sax yow yaa accepté jël confiance boobu comme que confiance boobu jël nga ko nan ko matale ni mu gën a ni gën a mate boobu boo ko defee ci ngay doog a nekk vrai vrai doomu aadama boo xam ne yàlla créé na la mais buñ topp ci li nga xam ne moom mooy machine jàpp na ñun ay machine lañ jàpp na war a topp ci ay ni adduna bi di doxee ni muy évoluer ñu jàpp ne daal nekk duñu ay doomu aadama ay doomu aadama lañ dafa am lu ñu fi yàlla indee ñu war koo matal kon nañ ko matal ba mu a sëkk ko qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum mbokk yi gannaaw bi subhanahu wa taala di liwaat yéen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam confiance ak nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala yan doomu aadama mu nangu ko dafay melalu melalu ci taxaw gi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun da ngaa war a taxawe ci wareefam ci nan la ñu def ba suuf si nekk suuf su neex a dundee suuf si nekk soo xam ne suufu jàmm la pour ñu dundal ko ci topp borom bi subhanahu wa taala ndax nation adduna bi yëpp kenn ku nekk ci yoloxo ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable yi wala attekat yi confiance confidence la boo xam ne borom bi subhanahu moo ko jox njiit yooyu noonu buñ ko tëralee doxal li nga xam ne moom la leen borom bi subhanahu wa taala ci seeni peuple ci laaj leen biir ak sàmm leen ñoŋal leen ñoŋal seeni teraanga ak seeni liberté taxawee li nga xam ne mooy sharia yàlla bu boobaa matal nañ seen responsabilité bu boobaa yàlla du leen wax dara ndaxte imam wala njiit lu mën a doon sàmm nga ci li la borom bi subhanahu wa taala dénk sàmm nga ci sa peuple te bu àllaaxira yàlla dana la laaj li nga doon sàmm فيلا نينا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرة شرا يرى لم نيو نيو دنا لوكو لاي من توجي توجي أسلم دنا لوكو لاي ابن يسار ين بين حديث بو خامني صلى بين حديث ين دي دغنا ين دي صلى الله عليه وسلم ني امول بن جام بو خامني يالا دنا لا دغ اك لوم نا مونا دغ mo xam num tol mo xam mu tuuti wala mu reuy nga dee bes ba ngay dee fekk yow da nga wuru jun ñi nga xam ne la nga xam ne mo la borom subhanahu wa ta'ala denk lu dul ne yàlla dana la dana araamal ci yow aljana kon doo dugg aljana moom kon lu tuuti tuuti dañ ko muy diine ji muy lislaam confidence la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala da dénk borom xam-xam yi ñu war koo leeralal nit ñi war koo ñoŋal ci lépp loo xam ne caaxaan la ak di ko foye képp koo xam ne taxawee nga róoy googu noonu def ko ni mu waree yow wóor nga borom bi dana la fay mais képp koo xam ne da kaa wóor dem diine ji yow li la ci intéressé rek mooy nan ngay def ba dund ci da nga ko layoo ak borom bi subhanahu wa taala ndaxte yàlla nee na fàttalikul ba ñu jëlee misaax bis contrat boo xam ne contrat bu bis la ki ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon mooy ahlul kitab yahud yeeg nasaraan yi mais ak ñun képp koo xam ne am na loolu yàlla cëral ci tuuti xam-xam ci nga bokk pour ñu leeralal nit ñi li nga xam ne moom mooy diine te buñ ko nëbbu ñu daal di ko jël sànni ko seen ginnaaw nekk seen intérêt personnel nekk seen i bànneexu bakkan jëndee alal ju néew a néew a néew ndax liñ ciy am a diine te danaa ko layoo ak ñoom xam-xam confiance la ndénkaane la subhanahu wa taala dala jox yow borom xam-xam bi koo a doon nag moo xam borom xam-xamu diine wala borom xam-xamu leneen lu dul diine mu ne boo ko jëfandikoo ci loo xam ne dafay dimbale doomu aadama yi loo xam ne dafay avancé loo dëkk bi borom bi dana la fay bu boobaa ku wóor la mais bu na dañ ko utiliser ci leneen loo xam ne caaxaan la sànq dëkk bi sànq doomu aadama yi kon yow ab wërëjkat nga ak kàccoor la te dañ ko layoo ak borom bi subhanahu ba nga xamee ni am na ñoo xam ne dañ leen a dénkoon xam-xam ñu war war xam-xam boobu noonu seen xoloo seen xol xol yoo xam ne xol yu jàng ñuy changé baat yi nga xam ne nii moom la ñu waroon a wax mu leer di ko changé di indi yeneen baat fàtte yi nga xam ne nii moom lañ leen cëraloon ci xam-xam kon nañu ñu moytu loolu borom alal bi moom it alal bi nga xam ne moom la yàlla joxe jox la sa loxo na nga xam ne ndénkaane la bu la yàlla dénk boo ci rafetalee ni nga ko war a ni nga ko war a doxalee borom bi subhanahu wa taala dana la mais bu fekkee ne nag alal jooju dañ kaa jël ci def la neex crime yu am ci àdduna bi yow ci nga ci ñi koy financé ci nga bokk lu bon lu am ci àdduna bi ci ñi koy financé ci nga bokk na nga xam ne aw wuritkat nga te borom subhanahu wa taala dana ko layoo ak yow walladina yaknizuuna zahaba wal fidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fa basqihum bi azabin alim ba pare mu ne inna alladina yuminal mubazirina kaanu ixwana shayatin ñi nga xam ne ñoom ñooy ay yàq mbokki saytaane lañ te saytaane moom dafa jël borom borom bi def ko muy ab noonam te mooy suñu noon bu mag bi kon kóllëre ak confidence mën na dugg ci lu bëree bëri li ci gën a rëy confidence bi gën a rëy mooy diine kon dañ ko war a jàpp bu baax a baax a baax beneen confiance bi nga xam ne moom moo ci topp mooy ñi nga xam ne am nañ ci dara ci diine dañ koo war a jotal ndaxte xéewal la boo xam ne yàlla moo ñu ko jox te dañu koy dañu koy laaj beneen confiance beneen dénkaane bi mooy doom donc bi ndénkaan la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala dañu koo dégg te dañu koy laaj beneen confiance bi nga xam ne wala ndénkaane bi nga xam ne yàlla dañu koo jox mooy kenn ku nekk liggéey liggéey liggéey confiance la ndénkaane la yàlla dala kaa jox da ka kaa war a rafetal Buxaari yi génne na benn xadis Abu Hurayra soloo ko mu ne isa buyatil amana fantaziri as-saa buñ demee ba confiance amatul na nga xam ne àllaaxira ñëw na te yaakaar naa ne fi mu jamono ji loolu lañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaan ne iza usnila al amru ila xayri ahlihi fantaziri saa buñ jëlee am mbir jox ko koo xam ne amul capacité diriger ko amul mën a mën a diriger ko na nga xam ne allah tey ñëw na te yaakaar naa loolu mu ngi feeñ ci suñu jamono yi beneen bi aussi mooy wilaya wal xukum mooy nguur ak atte loolu moom it dénkaane la moom moo ko yàlla moo la ko jox bu la ko yàlla joxee da nga ko war a rafetal def ci jaamu yàlla boo xam ne yàlla da la koy fayal te yenente bi sallallahu alayhi wa sallama waxoon na Abu Zar ba mu ñëwee naan ko yenente bi damaa bëgg nga fal ma Abu Zar lan la ko yenente bi wax Abu Zar yow da ngaa daif yow da ngaa nekk koo xam ne danga ngaa ndéew su ma la falee mbugal nga ci am mais doo ci am li nga xam ne moom mooy yërmande mais kuñ jox nguur ak ku mën a doon boo ko taxawee ni mu waree kenn du la jiitu aljanna mais boo ci waree kenn du la jiitu safara yàlla nañ ci yàlla ñu ñëw am koo xam ne dafa ñëw ne la man dama laa la waxtaan ak yow jox la ay moo yoo xam ne secret la ci moom nga dem di ko siiwal kooku moom it nañ koy moytu lu baax lu bon la li ci gën a bon la mooy ñi nga diggante jëkkër ak jabar koo xam ne dafay génne di weer ay secret jëkkëram wala jabar jëkkër jëkkër yoo xam ne dafay génne di weer ay secret jabar loolu yëpp confidence la boo xam ne dañ koo war di sàmm di ko moytandiku beneen bi aussi mooy muamala jëflante suñ diggante bu ñuy jëflante suñu diggante loolu aussi confiance la ak confidence boo xam ne dañ ko war di sàmm dañ ko war di sàmm xam ne yàlla moom mooy nekk ci diggante bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos naa romb benn waaye buy jaay mu jël loxoom dugal ko ci biir njaay mi loxo bi ba mu jàllee ci biir mu daj fa lu tooy mu ne ko mu ne borom njaay mi waaw lan moo tax njaay mi ci biir tooy mu ne ko sow bi moo doon taw mu tooy mu ne ko lan moo tax tegoo ko ci kaw nit ñi di nit ñi gis ko ba pare ne ko man rasha فليس منا أم لم من غشنا نعم، يعني جوه من غشنا من غش لو كيف بقى خم نداني يعني يعني يعني ويد كم من دون كم من ويد نقصي فاجل كه كيف بقى خم نيام كده ليس منا نكتب جلس كنا نتجينا جي ويا كون نوي بس دم نكوي ميتو لن ما تخير النبي صلى الله عليه وسلم أبا تخ نكوي يوني يقولون كده الصادق الأمين الصادق الأمين دنيون مملني ولا رأي parce que dafa matal li nga xam ne moom mooy confident matal li nga xam ne moom mooy dëggu ba mat sëkk te yonent bi neewoon nañu képp koo xam ne am nga ñeent jaratul ngay sonn ci lenn ñeent a ngi nii jikko yi boo ko melokaanoo rek jaratul ngay sonn ci lenn ñeent moo ci njëkk beneen bi mooy nga dëggu ci sa wax beneen bi mooy nga rafet jikko beneen bi mooy nga fekk ci sa ñam li ngay lekk mu nekk lu lew ñeent yi nii boo ko amee soxlaatoo lenn kon nañ ci góorgóorlu ci ñeent yooyu noonu yàlla ya borom bi subhanahu wa taala wax ñu ne yàlla ya mu ngi leen di digal ngeen matale kóllëre yi jox ko seeni borom yàlla ya waxaan nañu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm bu leen wuruj bu leen wor bu leen wuruj bu leen wor ndaxte yàlla moom li nga xam ne moom mu leen bind xam na bu ngeen di wuruj ak bu ngeen di wor te xam na li ngeen di def kon yàlla dafa teral doomu aadama bi jël adduna bi yëpp jox ko ko ne ko yaay tees comme que ñun ñooy cheikh nag dafa am nu ñu war a doxalee mooy nañu matal kóllëre bi nga xam ne nii moom la ñu borom bi subhanahu wa taala te kenn ku ñu nekk ci ñun responsable la da nga taxaw ci kanamu borom bi mu laaj li nga xam ne nii moom nga doon sàmm yàlla ñu yàlla dimbale ba ñu mën a matal li ñu doon sàmm rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إلى صلاة أبى الله أن أصوم إلى غير سيد